discours bi li ci ëpp solo mu dellu ci loolu dellu ci ay mesures yoo xam ne waxoon na ko waaye li nga xam ne moom lañ ko mën a jàpp mooy que ne euh, euh, li nga xam ne moom la wax ne dana ko def ci maanaam dimbali askan wi ci euh, dund bu mu leen di jox dimbali askan wi ci mbirum électricité dimbali askan wi ci mbirum ndox dimbali entreprise yi yore transport tourisme dimbali tamit bépp fànn ci économie bi mën nañoo wax ne amul benn sénégalais boo xam ne bii mesure yooyu su paree da ngaa waat ne nguur gi ak réew mi ak njiitu réew mi nekkul ci sa wet pour sa wàññil la coono bi nga xam ne moo jógee ci crise bi ndaxte soo nekkulee koo xam ne kii néew nga doole bokk ci million bi nga xam ne dañ leen jox dund da nekk nga koo xam ne kii danga fay courant wala nekk nga koo xam ne kii da nga fay ndox wala nekk nga liggéey boobu kat boo xam ne da ngay liggéey ci entreprise du tourisme wala yore transport di ko def wala liggéey ci entreprise bu ndaw boo xam ne bii am na ay mesures yu ñu ci def donc loolu dañ koy rafetlu. Hmm. waaye nag pour dellu ci mbirum ndox mi euh, dañoo jàpp ne euh, am na daal euh, ci yi muy def pour pour woyofal nit ñi mooy mu jël ñetti milliards. soo gisee li ñuy wax tranche sociale mooy maanaam ñi nga xam ne ñaar fukki junniy litre par ndox duñ ko consommer. ñooñu euh, euh, soo euh, six cent soixante dix mille la euh, juróom ak juróom-ñaar fukki junni ci ay nit mhm. soko xayma so jëlé jëlee taayu ménage u Sénégal bu nek nga xamné ne juróom nit ñoo fa nekk lu mat cinq millions quatre cent personnes donc dana len impacté waaye doo ko jël mom rek dang koy jël boole ko ak yeneen mesures yi mu nek li nga xamné mom moom la président def lolu 3 milliards lay do 3 milliards yoy ni muy démé mooy xam nga ku ci nekk du ñu dem fayal la sa facture su fekkee ne facture bi jot nga ko léegi xam naa ni ñu koy defee mooy société o bi nga xam ne moom mooy facturer ndox mi moom la ñuy jël léegi xaalis bi jox ko ko moom léegi mu effacer loolu ci facture yi ñooñu nga xam ne noonu lañu ko war a facturer léegi nag ñaar moo mën a am soit dañ koy def ci facture bii di ñëw wala ñuy jël facture bu passé fay ko ba pare nag léegi loolu mu nekk avoir bu ñuy dind ci facture bi di ñëw waaye comme dañ koy doo ko wax danañ ci toog léegi seet ak ñi ko seq ñëpp pour seet ci ban anam lañ koy defee waaye li óor ba óor mooy dogal boobu moom danañ ko dëggal mu am ci facture nit ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy fay ndox mu nekk ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ndaxte tranche sociale bi ñu gën a néew doole ñoo koy ñoo koy fay